maa ngi lay fay sama waa ji maa ngi lay siyaare bu baax a baax. jàmm. sant Serigne tubaa Xaadimu Rasuul bu wér a wér. waaw sant rek comme ni ko ñëpp di dundee bég tey bégle jàng alquran jàng xasida yi Serigne Touba yi ñaanal réew mi jàmm bernde nekk ci liggéey Serigne Touba gi ñaanal Serigne taxaa mu yàgg fi lool te wér teg ci Serigne Bass Abdou Khadre mu yàgg fi lool te wér soxna Baali Mountakha jëwriñu waañ ji fo borom fondation bi yàgg fi loolu te wér ñuy ñaanal àdduna daal ñëpp yàgg fi te wér barkeb Seexul Xaddim dañuy wax liggéey sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kese tànk kanam kese la am Boucher tey bu doon bu doon comparer màggal daaw ak màggal ren si yow ban avancement si am si yow. yokk lool daawaati jéeg la ma amoon ak ren la ma daawaati jéeg la ma am ak daaw la ma am ak ren dafa ute chaque jour tey teg pas escalier far force Serigne tubaa di la teral nee la jamono ji lenn rek la ma Serigne Touba lenn rek laa koy ñaan lenn rek laa koy dagaan te exclusivité bi fii laa koy wax. fii mooy Dakar Live waaw Serigne Touba defal na ma lépp teralee na ma teraanga gu ne bégalee na ma bégal gu mbégte bu ne te jàppale na ma ci jàpp ni ñuy jàpp lépp ñuy jàppalee gor rek jàppale na ma ko. Serigne tubaa aw ma ci moom sago waaye lenn rek laa bëgg di ko ko dagaan ci barkeb Seexul Xaddim te lu ma ko mës a ñaan mu may ma ko. Bamba Xaadimu Rasul lu ma ko mës ñaan mu may ma ko waaye bii nag dama ko ko dagaan sasoo ko ñaan ko ko muy këru Touba dama bëgg balaa déwén ma am sama këru Touba fii biirub Touba. kër loolu nan laa ñaan de. waaw këru Touba daal laa bëgg. la mooy objectif bi kër Touba boobu lu tax nga bëgg këru Ndakaaru bëggatuma këru fenn këru Touba laa bëgg Serigne Touba Xaadimu Rasul may ma ko man mooy sama géer Serigne Touba rek laa bëgg moom rek mën ci man dara Serigne Touba laay ñaan barke Cheikhul Khadim mu may ma kërug tuubaa defal na ma lu ne waaye kërug Touba gi sama xol la ne barke Cheikhul Khadim te bëgg naa am këru Touba balaa déwén sénégalais yi nañ ma ñaanal réew mi nañu ma ñaanal adduna bi nañu ma ñaanal déwén sama yokkute man ci sama man ma yëg ni yokku naa këru Touba laa ko bëgg ndax defal na ma lu ne sax année mu yokku ma ay oto yokku ma kër këru ndakaaru yokku ma xaalis yokku ma ay sañse yokku ma mbégte yokku ma jàmm yokku sutura waaye ren nag kërug Touba laa bëgg déwén incha allahu rabbi xaadimu rasul yokkuma ci kërug Touba maam kërug Touba ci barkeb Cheikhul Khadim mais lan la fekk kër goo xam ne fu mu toll nii foo tuddee màggal te tuddoo ko day mel ni du safe wax ma du muy sëñ Askia seen diggante yi ñaar lan la. waaw El Hadj sama xarit la sama papa la. Ngoy Fall ajaratu Ngoy nekk sama papa nekk sama xarit ñu bëggal ma seen bopp. lu ñuy def woo ma ma teewe ko lu ñuy def yëg ma di waxtaan ak man di ma soññ di ma conseiller ñu nekk ay murit saadix gars yi dañuy jaawale kuy sant ak kuy puukarewu te gis nga ab cant bu demee ba nduruwul ab tiitaru rek doonatul ak cant te nit ki àdduna bépp yow koo defal ñaan nga yàlla mu sant la maas mii ku mu defal bëgg na mu sant ko man mii su ma la joxee sama alal bëgg naa nga sant ma kon suñ tubaa mu rasul bu la defalee danga koy sant ku sant ñu dool la nit ki boo ko sant bu la joxee fukki dërëm tey nga sant ko bu subaa mu jox la saafara noonu rek la yoonu murid cant la moo tax ajaratu ngoy faal ak alaaji Askiya Touré dañuy sant ba fecc man nee naa leen ñu sant ba doyal ba kenn laal leen. mais si cant boobu coow day commencé Sénégal yi bëri naan lii ay ngisal dafa am ñu ci du ñëpp am na ñoo xam ne nag biñ juddoo ba tey bëgguñu lu baax ñoom lu bon rek lañ bëgg lu bon a leen di dundal ñooñu nag bokkuñu ak ñi nga xam ne dañoo baax lu baax la ñu xam waaye ñi nga xam ne xam nañ ni sant ku sant ñu dolli la ñooñu duñu soxor duñu wax waaye ajaratu askiya xam nga ni man du ma dem fenn fu ñàkk fayda dañuy sant moo tax ma teew fii waaw. du si Askia kese du si soxna ngay kese même yow mi toog sax coow bi day ñëw si yow ñu bëri naan kii di buuse moom day business maanaam si gàmm gàmmu gi. Mhm. loolu tontu yooyu. mais man may business si ma gàmm màggal gi. mais business mais business bu gars yi négatif ga yaa jàpp ne peut-être moom day wayaan. man may business kan laa wayaan damaa tal kenn man Serigne Touba rek laay wayaan kan laa wayaan kan wax ma ku wayaan sama liggéey. boo waaw doo ko gis nee naa la dafa am ñoo xam ne bugguñu lu baax bugguñu ku wane lu baax man lu baax lu ne dama koy wane taluma sax loolu man man sëñ Tuubaa mooy sama géer sëñ Tuubaa laa bëgg màggalu sëñ Tuubaa dama ci business di ci am xam nga business bi mooy lan liggéeyal sëñ Tuubaa fukk mu fay la saa laa jox alors waxtaan bi li ñu si temps jot jël mu toll nii xam naa ne amatoo jot fu mu toll nii nag màggal gi ñu bëri lay xaar boo amoon kàddu yoo xam ne mooy tàggatoo rek ak di jox tamit di bu déwén si màggal xam naa yow moom pare nga fu mu toll nii. Euh, man tey laa pare bu déwén waaye lenn rek laay ñaanaat li ma leen wax Serigne Touba may ma kërug Touba loolu daal laa bëgg ci màggal gi. pour la la bëgg kër gi pour maanaam taalibe yi di dalal nit ñi wala la. dama ko amaa am yëg-yëgam pour ubbi sama dalu bopp di màggal di def ni ñëpp di dal am naa dal jannatul maxwaa waa laay dal foofu mooy sama dalu njaboot foofu mooy dalu sama dalu yaay ak sama famille waaye man bëgg naa am këru Touba di ñëw Touba di fi noppalu di fi tëdd di fi di fi di féexal sama yaram di jël ci aération beeg aéravine bi di nekk ci jàmm. boo amoon tey jii ñoo xam ne peut mën nañ la jàppale si kër googu noonu. kër gi Serigne Touba rek laa ko diis suñ Touba rek nu ko bëggee rek nag ko defee. jaar mën na ko jaar si ay loxo déggoo ñu ne la teraanga gu ne ci maanaam nit ku ne yàlla nit ku ne dafa am teraanga gu muy jaarale ci nit mu jox la ko man sëñ Touba bëgg mu jaarale ko ci moom te sëñ dina ma ko jox bu neexee yàlla ak yonent bi. merci beaucoup.